إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نيجي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى ديكو ñaan mu defal ñu sunu daje bi di daje bu barkeel wërsëgal ñu fi yokk ñu ci xam-xam yokk ñu ci ngëm ak jëfe ñu ngi ñaanal it mbokk yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu nekk ci site internet xam sa diine bi ànd ak ñun ci bind bi yàlla na yàlla boole leen ci ñu yonent bi alayhi salaam doon wax ne seeni xol de aju ca néegu yàlla ba kon incha allah ñi ngi tolloon ci téere bi ñuy jàng ci fukkeelu bunt bi ak juróom benn baabun fil amri bil muhaafazati ala sunna ñu jëloon ci lu bari ba war a yegsi tey ci fukkeelu xadis bi ci bunt boobu nga xam ne mooy tombeek téeméeru lu xadis ak juróom benn fukk ak juróom ci téere bi mooy xadis 165 nga xam ni ki koy nettali mooy an ibnu abbas radiallahu anhuma qaal qaama fiina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xatiban xadisu 165 ci nekk xadisul achir ci fukkilu bunt bi ak juróom benn bi wax baabun fi l amr bil muxaafazati ala sunna kon incha allah ñu bàyyi sunu mbokk bi mu jàngal ñu li nga xam ne moom la ñuy jël
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه غرلا أي غير مختونين
gis nañu ibnu abbas radiallahu anhuma mooy nettali ni qaama fiina rasulullahi xatiiban yonent bi day salallahu alayhi wa sallam taxaw na ci ñun di aji xutba bi mawizatin ci xutbab xuppaate fa qaala yaa ayuha nnaasu innakum mahshuruuna ila allah mu ne eyeen nit ñi xam leen ne daañ leen dajale jëme ci yàlla xufaatan wuraatan xurula ngeen def tànku neen yaramu neen la nga xam ne dañ koo daggoon ci yéen ca jamono ba ngeen di dugg néegub góor pour xale yi mën a dégg ba ngeen di jong lañ dagge woon ci yéen lépp day dellu siwaat kama bada'na awwala xalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin mu jàng la yàlla subhanahu wa taala ni nañu sose woon bind gu jëkk ga noonu lañ koy delloo digle bu nekk ci ñu- ci ñun yàlla mbir la moo xam ne bu ñuy nekk di ko def la ala wa inna awwala alxalaaiqi yuksa yowma alqiyaamati ibrahimu alayhi salaam mu ne xam leen ne njël benn mbindaafan ba ñuy jëkk a woddu yowma alqiyaama mooy ibrahima ala wa innahu sa yujaau bi rijaalin min ummati mu ne la am day danañ dikk daan dikke ci ay góor yu bokk sama xeet fa yuqazu bihim zaata shimal ñu jàpp jëmaleen ca wàllu càmmoñ ga fa aqulu ya rabbi ashaabi man ay sama boroom ñi samay sahaaba lañu fa yuqaal innaka la tadri ma ahdasu baadak ñu ne ko yow day xamoo li ñu sos sa gannaaw fa aqulu kama qaala al abdu saalix ma wax comme jaam bu baax ba la ma waxoon te mooy isa bnu maryam wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim nekkoon naa aji seede ci ñoom fii ak maa ngi doon dund seen biir falamma tawaffaytani kunta anta raqib alayhim ba nga ma faatee nag yow yaa nekkoon aji fuglu kuy surveiller ci ñoom wa anta ala kulli shay'in shahid yow yàlla yaay ki nga xam ne bépp mbir yaa koy seede léegi nag mi ngi noonu fa in tu'azzibuhum su dee da nga leen a mbugal fa innahum ibaaduk say jaam lañu wa in taxfir lahum su dee da nga leen a jéggal fa innaka anta al azizu al hakim yow yaay ki not lépp yaay ki xereñe fa yuqaalu li su ko defee ñu ne ma innahum lam yazaalu murtaddiina ala aqaabihim ñoom day dañu ñëwoon di dellu gannaaw ci seeni ndëggu munza faaraqta munza faaraqtahum ba nga teqalikoog ñoom ba tey ba mu lay wax ne xurulan boobu mooy ay xëra xëra maxtuunin mooy ñoo xam ne kenn jongalu leen mbokk xadis bi ibnu abbas nee na yonent bi moo taxaw dañu xutba yonent bi alayhi salaam daana xutba xutba yu bari imma ci juma wala occasion mu taxaw xupp nit ñi xutba boo xam ne xutba xuppaate la ca loolu wëreesul di ko baril dañ koy war di def ay jamono ndax loolu mooy dundal xol yi allahuma nag bokkul ak xutbay jàngale comme dars yi ñiy saxal ci jàkka yi na doon gannaaw timis la wala gannaaw nangam la loolu dañuy jël benn buntu di ko jàngale nànk nànk nànk nànk ndax xam nañ ne jàkka ji mi ngi fi dajee sept ans boroom juróom-ñaari at ak boroom juróom-ñetti fukki at loolu moo tax boo demee masjidul haram boo demee masjidul nabawi ci jumaa yonente ba boroom xam-xam yaa nga fa bis bu yàlla sàkk ñu ngi joxe ay durus amma nag xuppaatee dañ ko war a def léeg-léeg kon yonent bi taxaw nu xupp jaam yi lan la leen wax mu ne ay yéen nit ñi yéen ñépp dañ leen dajale jéeme ci seen boroom ñi ñi suuloon Pakistan Amérique Sénégal Japon yéen ñépp ci seen boroom lañ leen dajale jéeme loolu it mu ñuy jàngale ni mbir bi nekkul yow foo dee yeeg fu ñu lay suul waaye mbir bi moo nekk ba ngay dem sa boroom lu fa yóbbaale loolu mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam wax ci lu tiitlu mooy doomu aadama nim ñëwee kaw suuf noonu lay génne suuf ëllëg bi ñuy ñëw kaw suuf ñun ñëpp dañoo indaale yére laa dañu indaale ay dàll laa dañu indaale ñu dagg ci ñun la ñuy dagg ci jamonoy jong laa ci loolu it léeg-léeg nga dégg ñu naan yonent bi alayhi salaam bi muy judd lañ koo dugal néegub góor dañ koo kaza wa kaza loolu waxi gàmm ko di rek la amul benn tegtal ci sunna ala kulli xaal sunu boroom noonu lay génnee jaam yi ci bàmmeel yi comme bi ñuy judd yaramu neen yonent bi alayhi salaam wax na ko ci këram bis ndax nam daan waaree mbedd ma la doon waare waa këram sunu yaay Aysa na ko waa sow ata ah man day loolu day yow mi yàlla yónni góor ak jigéen mu ne ko Aysa mbir ma gën naa ñàng ci ngay taxaw naan ndax kii ma dendal góor la am jigéen doomu aadama nag fa muy demee ba xamul ndax góor ak jigéen la dendal fàtte na baayam fàtte yaayam fàttey doomam am déet loo tax xatta yonent yi alayhim salaam ba keroogee li ñuy ñaan yàlla rek yàlla musal leen allahuma sallim sallim loole mi ngi noonu tiitaange bu rëy la doomu aadama yi di dekkee borom bi mu ne yow ma yaj'alul wildaana shiba xale yi sax dañuy bijjaaw léegi nag sunu borom commencé di wadd ña ko neex ci ay jaamam yal na yàlla boole ñu ca ñami wadd ka ñuy jëkk a wadd mooy Ibrahim la ca gën a maandu mooy ñu xam ne ngeneelu yàlla la bi muy jox ku ko neex doonte ne am na borom xam-xam yu cay wax ni yonent bi alayhi salaam moo ko gën fuuf pourquoi ñuy jëkk a wadd Ibrahim waaye it bokk na loo xam ne xel da koy nangu yaag sa baay bu ngeen àndoon rafle benn waay jóge fa la jël ab sër jox la ko da nga koy woddoo am da nga koy jox sa baay da nga koy jox sa baay donte ne Ibrahima baayam la la gën a mucc ayib nag moo dina ne gëneelu yàlla la yàllaa koy jox ko ko soob donte ne yeneenti yàlla bi moo ko gën ala kulli xaal Ibrahima la ñuy jëkk a wodd suñ ko woddee yonent bi alayhi salaam ci yeneen riwaaye nee na nag gannaaw bala yàlla di indi sama koddaay koddaay yooyu nga xam ne aljana lay jógee yàlla wodd ña ko neex ña ca des mu bàyyi leen ci seen rafle ga ngi noonu xatta bi ngay dem néegub góor lañ dagg ci yow suñ borom da koy delloo siwaat nga nekk aat ca ni ko mag ñi àll bi waxee mooy koo xam ne kenn su ko jongal nga mat sëkk ci say cër loolu mu jàng ay borom bi nga xam ne sunu borom nee na man day maay ki jëkk a sos ca mooy génn doomu aadama bind ko maa koy baamuwaat ca loolu ñun daañ ko def looloo tax boo demee ci alxuraan moom sunu borom dane ah kala aw bala qaadirin ala an nusawiya banaana bal doomu aadama daañ dem ba delloo ko cati baaraam yi mu amoon biñ demee ba vingtième siècle la tubaab bi doog a gis ne que te ay cati baaraam kenn nuruluwu ko ak sa morom di bay wut carte d'identité wala passeport dañ koy tampé mu ne ni ñëpp kenn yëmalu ko sa morom signature spéciale bu bu borom bi subhanahu wa taala def ci doomu aadama yi noonu itamit lan dagge woon ci yow loolu day day dellu siwaat suñu borom mu ne lii dig la boo xam ne ñoo ko digg ci dañ ko def yonent bi alayhi salaam nee na jamono bi nga xamee ni nii taxaw naa te ñëw na ci yeneen riwaaya yoo xam ne ci ah déeg bi ko yàlla may lay doon yowmal qiyaama sunu boroom may na yonent bi kawsar ñu ngi ci biir aljanna waaye dana ko ca may benn déeg ci place yowmal qiyaama boo xam ne yonent bi alayhi salaam nee na nekk na masirata shahr te loolu arab yi ñu ngi ko doon wax lu tolloog juróom benn téeméeri kilomètre mooy déeg bi six cent kilomètres carré la la ca nekk ci ay kopp yonent bi nee na mi ngi mel ni biddiw yi ay ci bariwaay ca la yonent bi di woo xeet bi kaay leen ngeen naan mais nee na yàggul mu gis malaaka yi xaaj benn mbooloo di yóbbu yonent bi alayhi salaam ne leen mais ñii samay saxaaba lañu ñu ne ko waaw waaye xamoo li ñuy def sa gannaaw loolu da ngay gis ni chiyaa yu bon yooyu ca la ñu sukkandiku ci ne saxaaba yi dañoo murtat gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doonte ne ni bokk julit loolee ñu wax wax mënu koo gën a dangereux ala kulli xaal nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee ñàkk a gëmoon ca bari nañu ndax saxaab yi mooy képp ku gis yonent bi gëm ko rek dañ naan saxaaba la yonent bi bi muy dund am doole giir yi dañu doon dugg si ci diine yàlla ji war a ay te nas yadxuluna fi diin la ifaaja di loolu la yàlla wax dugg si bu bëree bëri léegi nag bi yonent bi alayhi salaam faatu ca la ñu bëri commencé di delluwaat seen ca doga njël benn mbir bi ñuy jëkk a bañ mooy génn zakat ay yenn giir bokk nañu si gënoon a mag ñu tudde banni bakkar daal di taxaw ne ñun yonent bi lañ doon jox zakat jóge na fi jeex na te it ñoom dañ ne sunu borom moo ne xuz min amwalihim sadaqa yow yonent bi xuz jëlal kon yonent bi nekk fi dootu ñu génn zakat Abu Bakar nag ne képp ko teqale diggante julli ak zakat dinaa xeex ak moom mi ngi noonu amma bu dee mbooloom sahaaba yi ñooñu mbokk sunu borom moo leen tagg ci téerab yàlla bi am déet assaabiquuna al awwaluun min al muhaajirina wal ansaar walladina tabauhum bi ihsaan suñu borom mën a radiyallahu anhum yàlla gërëm na leen ca àjjana mooy seen wàccuwaay léegi nan ngay wëlbati ko ne sahaaba yëpp dañoo murtad laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatihi wa qaatal ulaika azamu darajatan min alladina anfaqu min baad wa qaatalu kenn xamul ñaata aaya la sunu borom yàlla tagg sahabatul kiram tagg goo xam ne yemul lu dul ni dinaa leen tabbal aljanna su ko defee kon ña nga xam ne ñooy tuubeen ya ca ñoom ñoom ñoo def loolu amma bu dee chiya yu bon yooyu ñañ jiital te ñu murtat mooy abubakar ak omar ak usman mi ngi noonu su ko defee loolu nekk musiba boo xam ne boo ko toppee kenn xamul nu mu toll ndax tooñ nañ saxaaba yooyu waaye tooñ nañ it sharia mbokk sharia bi ñuy jàng looy dégg qaala abu hurayra qaala omar qaala usman qaala nangam waaw ñooñu bu dee dañ ne ay yéeféer lañu ndax sharia dana am ci garantie abadan ñaareel bi it kon day wane na yonent bi alayhi salaam échec na yonent bi alayhi salaam nan lay tiime ay nit ñaar fukk ak ñett mu ànd ak ñoom gërëm leen tàgg leen ñooñu nekk ak ñoom ba mu pare ñoom ñëpp ñu murtat loolu day wane ne moom mission dafa échec ñaareel bi itamit mooy sunu borom yàlla nan lay jëlee gën ji yonent daal di koy booleeg ay nit ñoo xam ne ñoo ñu yées ci nit ñi comme naka waa Chia di waxe bal ñoom rek ñoo ñu yées te sunu borom tagg xeet bi ànd ak moom ne kuntum xayru ummatin uxrijat linnaas ala kulli xaal tontu yañ leen di tontu géej la gu dul jeex waaye ala mooy dina ne tuumal nañ saxaaba yi tuumal nañ yonent yàlla tuumal nañ sunu borom jalgati nañ sharia waaye la ngay gëm mooy sahabatul kiram la nga xam ne mooy quatre-vingt-dix-neuf virgule nangam ci ñoom bokkuñu ci wax ji ñuy wax amaa ña nga xam ne nag seen ngëm dëgërul woon ay tuubeen yu bees lañu woon am na ñoo xam ne dañ caa dellu gannaaw tey dellu gannaaw googu du dañ ba ilaa yawmi diin nit ñi di changer seen diine moo tax yonent bi alayhi salaam di wax naan bokk lu nit ñi li nit ñi di jëkk a bàyyi mooy àttewool yi yàlla wàcce daan dem ba kenn dootu julleeti léegi nag bi nga xamee ni li am na lan la yonent bi alayhi salaam wax yonent bi daal di jàng aaya ba Isa nar a jàng yowmal qiyaama sunu borom nee na yowmal qiyaama dana wax Isa ndax yow yaa wax ñama la yónni woon yahudi ak nasaraan yi na leen ittaqizuuni wa ummiya ilahayni min dunillah maag sama yaay def leen ay yàlla Isa lan lay wax yàlla day waxuma ko su ma ko waxoon xam nga ko xam nga li nekk sama bakkan ca man xawma li nekk sa bakkan waxuma lu dul la ma santoon léegi nag man yàlla nekkoon naa aji seede fii ak maa ngi nekkoon ci ñoom lañ daan wax ci lu bon tere naa leen ko lañ daan def ci lu bon tere naa leen ko waaye lii moom fekkewuma ko yow yaay ki nga xam ne yaa ko fekke yow yaay kii seede ci lépp léegi nag yàlla ñoo ngi noonu de man day deñ naa ci ñoom say jaam lañu bu la neexee mbugal leen bu la neexee yërëm leen mu ne yonent bi alayhi salaam nee na loolu lay wax waaye mbokk xadis bii naka ngeen koy déggee yonent bi nee na dana wax yàlla yowmal qiyaama ba muy dund day maak ñoom xamoon naa li xew ci ñoom waaye bis ba nga ma faatee xamatuma lu xew yaa fa nekkoon di loolu la yonent bi wax day waaw léegi nag nuñ koy déggee ñi nga xam ne jàpp nañu ne heure buñ jullee ba pare def géew yonent bi ne cëpp ànd ak Abubakar ak Osman ak Ali noo koy déggee ci ñu ne yonent bi ñëw na fekk ko place sàngam gane ko fa mook asabu Badar ñaata fan ni ngay déggee ku nekk ne jàpp moog yonent bi ñëw na gis na ko jëhran yonent bi jox ko nangam ak nangam te yonent bi nee na kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim doon naa aji seede ci ñoom fekk maa ngi dund bis ba ma faatee yow yaa fa nekkoon yàlla loolu moo tax mbokk nañu xam ne sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam keroog ba ko sahabatul kiram sangee ñu dem suul ko ca xabrom bu tedd boobee la nga xam ne mooy xew ci xeet bi loolee xamu ci dara lu dul ni lam fekke woon su ko defee yowmal qiyaama noonu lay deñe ci ña nga xamee ne nii mooy ña ko doon dural loolu loolu kon ñu bàyyi xel ci loolu bu baax léegi sunu borom subhanahu wa taala ni ah wala boog yonent bi alayhi salaam ni dañ may wax na ma Muhammad ñii day bul sa xol tàng ci ñoom ndax la nga leen fa bàyyi woon dañ ko faa bàyyi dem topp seen bànneexu bakkan muy wane yépp ne mbokk tuddee woon ne jullit nga du loolu moo lay musal yowmal qiyaama waaye roy sunna yonent bi loolu moo lay musal yowmal qiyaama comme niñ ko nar a leerale ci kanam yal na yàlla yombal ko ci ñun
عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدم وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن متفق عليه وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه
la nga xamee ni nii mooy xadiisu téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn ci téere bi ki ñu koy nettali mooy abi said abdullah ibn mughaffal radiyallahu anhu qaal naha rasulullahi an alxazf wa qaal innahu la yaqtulu sayda mu ne moom day du rey am rëbb ay lu ñuy rëbb wala yankawul adu du reyit la nga xam ne mooy ab noon mooy du ko dàq du ko rey wa innahu yafqa'u al-ayn wa yaksiru sin loolu daal di mën a def mooy fuq bët ak damm bañ wa fi riwaya ann qabiran li ann qariban li ibnu mughaffal xazafa saxaabi bii di ibnu mughaffal benn jege ñaaleem dafa def xazf xazf mooy jël benn xeer bu ndaw téye ko sa ban sa baaraamu sànnikaay ak sa baaraamu dey daal di koy sànni fa naha fa nahaahu mu tere ko loolu wa qaala inna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naa anil xasf mu ne ko yonent bi dafa tere ñuy def lii wa qaala innaha la tasidu saydan ca mu ne ko lii day du rëbb am rëbb ca mooy du rey am rëbb lu ñu rëbb thumma aada fa qaal waa ji ba mu delloo di sànniwaat xeer yooyu fa qaal mu ne ko uhaddisuka anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naha anhu maa ngi lay wax ne yonent bi alayhi salaam tere ne li ngay def summa utta taxzifu nga continuer di def loolu di sànni xeer yu ndaw yooyu laa ukallimuka abada dootuma wax ak yow ba mukk bi ci mujj mooy wa an abis ibnu rabia qaal raaytu omar ibnu alxataab radiallahu anhu yuqabbilu alxajar al aswad ay yaani al aswad mu ne man de damaa ànd ak omar ma gis ko muy fóon xajarul aswad di xeer boobu nekk ci kaaba gi wa yaqulu inni la uqal inni la uqabbiluka wa aalamu annaka xajar mu ne ko man de maa ngi lay fóon doonte ne xam naa ne xeer kese nga ma tanfa'u wala tadur amoo benn njëriñ amoo benn lor walaw laa anni raaytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk bu dul woon damaa gis yonent bi alayhi salaam di la fóon maa qabbaltuk kon day du ma la fóon mukk mbokk lii dañuy woon sahabatul kiram ni nga xam ne noonu la ñu fonke woon waxi yonent bi ak nit ñi bañe woon ku koy soofantal sallallahu alayhi wa sallam sahaabi bi mu ni dafa toog ne day yonent bi day dégg na mu ne kenn ci yéen bu mu jàkkaarloog lu ñuy rëbb mi ngi noonu jël xeer di ko ko sànni ndax xeer bi nga ko sànni munu ko rey bu kenn ci yéen dajeeg ay noonu yéeféer jël ay xeer yu ndaw di sànni ndax du ko du ko dàq du ko rey xeer yooyu lu man mooy fuq bët wala damm ay bañ loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bari na tey ay événement yuy am nga gis ay nit ay xale wala léeg-léeg sax ay mag jàkkaarloog mbooloo imma mbooloo moomee lutte syndicale la wala sport la wala lu mu mën a doon ku nekk xeer boo for rek sànni toj bopp yi damm bëñ yi loolee mbokk musiba la te la ci gën a nekk musiba kan kay def doo ko xam bu doon koo xam sax balu ko àq wala kaza wa kaza mais déedéet tim mbooloo rek jur say xeer lu ci bari ay innocent ñoo cay dee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ala kulli xaal wax na ko lenn ci ay jegeñaaleem gis na ko mu dem di def xasf di am lu muy rëbb jël xeer bu ndaw di sànni mu ne ko ah yow diw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day def ni lii bu ko kenn def ndax du mën a rey la ngay rëbb du mën a dàq say noon loolu bi mu amee ñu toogaat jëmmi jamono mu bettaat ko muy def même chose di sànniwaat xeer yooyu mu ne ko yow diw maa ngi ñëw ne la yonent bi alayhi salaam nee na lii bu ko kenn def nga wëlbati ko di ko def waat naa ne dootuma wax a teg yow ba ah ñuy bokk faatu te loolu it mbokk ñu xam ni yonent bi alayhi salaam tere na ay jullit am problème di dummoo yonte allahuma lu dul loo xam ne wàllu yarub diine la jàngoon nañ ibnu omar ba muy pes doomam ja ba ka doom ji ne danaa tere samay soxna ñu dem jàkk fekk def na ko yonent bi alayhi salaam nee na kenn ci yéen bu ko soxnaam ne jàkk jalaaje mu ne ko bul dem mu ne ko bàyyi man sama soxna yi bu ñu ma tere ma bu ñu ma tàggoo ma tere leen mu peske na ko bis nekk tey dootuma wax ak yow ibn mu xafal bi it noonu la mel te moo di ne ni la leen ci jubluwaay ba mooy yar ki nga xam ne mooy ki def musiba boobee ndax sa kilifa bu la dum mooyoo ca nga xam la tax mu def ko lu mel noonu doo ca doo ca dellu mukk waaye nag mu nekk benn bind ba ilaa yawmi diin moo di ne ne bépp jullit bu dégg xadis bu mel nii du déggatu mukk ñu ne yonent bi alayhi salaam tere na nangam muy wëlbatiku naan da koy def wala da koy jiingat loolu ñu bàyyi ci xel ba bu baax a baax léegi nag beneen xadis bi nga xam ne mooy bi mujj mooy saxaabi bi nga xam ne mooy abis ibn rabia nee na damaa ànd ak omar omar mi ngi jiite at ji bi mu ñëwee ba xajarul asad mu fóon ko waaye omar xam ne ne ne mbooloo mu bëri ñi ngi koy gis te ñu bëri ay tuubeen lañu dañu daan dem di jaamu ay xeer omar nag daal di ne ko man day xam naa ne xeer kese nga doo jëriñ te doo lor mbokk negam sunu xabru yi gaa yi defar def ci ay barrage nga gis ku ñëw di raay xabru bi nekk di fóon ka fomp say mbubb ñu mel noonu bu ñu demoon ci xajrul aswad ana naka la ñuy def ca loolu muy wane ne mbokk xajrul aswad la nga xam ne mooy jubluwaay bi bu la yàlla yóbboo makka mooy nga fóon ko jàll amma bul jàpp ne daf la amal njëriñ wala amal la lor te loolu da ngay gis sahabatul kiram bi ñuy yàlla doog a indee acc ñu bari ci ñoom dañ doon wax duñ daw diggante safa ak marwa ndax ay xeer la ci seen maam dañ daan jaamu xeer suñ borom ne déedéet safa ak marwa ci mandarga yàlla la mooy daw leen diggante bi waaye nag bu leen ko ñaan bu leen fa toroxlu bu leen ko raay bu leen ci def dara xajurul aswati noonu la demee donte ne xale yi utiliser internet war nañu def attention bu baax maa ngi gis benn mbir bu ñu dugal ci xajurul aswat ña nga xamee ni nii mooy saay-saay si benn labbe chrétien mooy wax wax ji xajurul aswat ñi ngi koy wutal ay bët wutal ko ay tànk teg ay musique mu mel ne loo xam ne liy fecc la léegi ñu ñu teg ci te ñoom dañuy xeex lislaam dañuy jàng lislaam mu ne ñoom ne jullit yi ñu ne Omar def na xajarul aswad doo am njëriñ ca doo am lor te yonent bi alayhi salaam ñu ne seen yonent doonte ne lam ca teg du lu may nettali seen yonent bi moom nee na xajarul aswad day seede ñi ko masaraay yowmal qiyaama ndax lii du contradiction te mbokk xam ngeen contradiction amul ci loolu mooy seede sunu borom subhanahu wa taala nee na sunu loxo yi ak sunu tànk yi day seede yowmal qiyaama sunu borom nee na suuf si day seede yowmal qiyaama naka noonu xajrul aswad day seede yowmal qiyaama mais seede ga muy seede yowmal qiyaama ni ñi nga xam ne ñëwoon nañ makka loolu ndax dana mën a yem ak ñu jàpp ne kii mën na maa jëriñ ba ñu koy ñaan sunu soxla wala mën na maa teggi lor ba ma dem ci xajrul aswad di ko wax mu teggal ma sama soxla kon ñu xam ne amul benn contradiction ci loolu waaye xale bi doon ubbi loolu gis ko ci xamul sunna loolu mën na indi chàq ci xolam te loolu rek lañ ci jublu ñoom yàlla na yàlla musal ñu ci seen ay ala kulli xaal kon mbokk lii lim ñuy jàngal mooy yow julit ndigilu yàlla am na loo ci comprendre am na loo ci comprendreul moo tax Omar na ko yow xajar la sóot xam naa ne amuloo ma njëriñ amuloo ma lor danaa la fóon nag lu tax gis naa yonent bi di la fóon loolu it moo tax yow julit noonu la li yonent bi wax def ko rek comprendre nga am comprendreul ndax tey njàpp ku ne xam ne ne ni lu lu ñu mën a comprendre la julit demal ut ndox raxas sa kanam say loxo say tànk waaye jëlal say loxo magum jëmm jël say loxo teg ci suuf raay sa kanam loolu noo ci mën a comprendre mënoo ko comprendre waaye yonent bi alayhi salaam moo ko déglee da ngaa ànd ak janaba ndox amul tiimel mën ngaa julli da ngaa war a jàpp ndox amul tiimel mën ngaa julli loolee lu tax sunna la am maa nag le pourquoi loolu sa yónnewu ci mi ngi noonu
باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي الى ذلك وامر بمعروف او نهي عن منكر قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سوره النساء وقال تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون سوره النور وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه
buñu delloo ci fukkeelu bunt ak juróom ñaar ci téere bii di riyaadu salihin mooy baabun fi wujubu l inqiyaadi li xukmi llahi taala bunt la ci wareefu wommatu ci atte yàlla mi màgg mi wa ma yaquluhu man du'iya ila zalika wa ummira bi ma'rufin aw nuhiya an munkar ak lan la war a wax ku ñu woo jëme ci loolu digal ko lu baax tere ko lu bon qaala allahu taala sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ni fala wa rabbika la yu'minuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum maa ngi waat ci sa borom ne du ñu gëm lu dul ñu atte woo la la nga xam ne mooy juyoo ci seen diggante thumma laa yajidu fi anfusihim xaraja mimma qadayta gannaaw bu duñ yëg ci sa seen bakkan benn xat-xat ca la nga atte wa yusallimu taslima ñu jébbalu ak jébbalu wa qawluhu taala ba tey innama kaana qawlu almuminina ida du'u ila allahi wa rasuli nekkoon na kàddug julit ni bu ñu leen woo jëme ci yàlla ak yonent yàlla li yaxkuma baynahum ci mu àtte seen diggante an yaqulu sami'na wa ata'na mooy ñu wax dégg nañu topp nañu wa ulaika humul muflixuun ñooñu day ñooy ñi texe wa fiihi min al ahadis xadisu abi hurayra al mazkur fi awwal al baab qablahu ca it bokk na ci xadis yooyu xadisu abi hurayra ba nga xam ni jàngoon nañ ko ca njëlbeenu bunt ba nga xam ne moo ko jiitu woon wa xayruhu min al ahadis fiihi ak yeneen xadis ci loolu ala kulli xaal mbokk aaya yi jàngoon nañ lu mel noonu ci gannaaw sunu borom mu ne ñi woote woon ay julit lañu maa ngi waat ne duñu gëm lu dul problème bu ñu am dañu koy delloo si ci yow nga àtte ca te du ñu am benn xat-xat ci li nga àtte ñu jébbalu ak jébbalu waxi jullit heure bu problème amee ñu ne ko nañ dellu ci yàlla ak yonent yàlla te mooy téere yàlla ak sunna yonent bi mu àtte ñu la ñu war a wax rek mooy dégg nañ topp nañu ñooy ñooy ñi texe allahuma lu dul ne mbokk soo dellu woon tey ci réew yu bari ci réewu lislaam commencé suñu réew da ngay gis ak yéemu lool ci ay jullit yoo xam ne xam nañ ne sunu borom yàlla wàcce na ab téere bu ñu war a attewoo téere boobu ñu jël ko dummu yu ko won ko gannaaw ba pare di attewoo ay mbir yoo xam ne tubaab ya ko créé woon fañ ko créé jamono jooju ak suñ jamono kenn xamul ñaata ci ay at la seen milieu bañ xam ñoom ak suñ milieu seen culture ak suñ culture kenn xamul nu mu safaanoo teewul la ëpp ci suñu loi ñoo ngi ko copier exactement ak loi yee xew France wala yee xew Angleterre loolee mbokk mbir la moo xam ne bu bu métti la loolu nag jullit ñépp waroon nañu am yëg-yëg ci ne la nga xamee ni nii mooy loi borom bi subhanahu wa taala ci loolu la ay jullit war a tënku ci loolu la ñu war a attewoo yàlla na yàlla subhanahu wa taala delloo si ko ci suñu réew mi ngi noonu donte ne ni tubaab yi ba ñuy doog a nax di ñuy indil seen loi laïque yooyu dañu waxoon ne am ngeen droit am seen qaadi qaadi boo xam ne yéen jullit ñu ko bëgg am su problème dem attewoo ci foofu donte ne lay problème bi mooy qaadi boobu it ña cay attewoo buñ bañee ka yore kàddu gu mujj ga mooy mooy att bi yéeféer ba léegi nag dem nañ ba loolu sax amatul benn attekat mooy fi nekk mooy atte miraas yi mooy atte sàcc si mooy atte njaalookat yi mooy atte lu mu mën a doon te yooyu yépp atte bi yàlla bi mi ngi fii ñu koy jàng gu dégg ba ceeg mi alquranul karim mi ngi noonu
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها
قسنا يو xadisa téeméer ak juróom ñett juróom juróom benn fukk ak juróom ñetti ci téere bi ki koy jàngale mooy abi hurayra radiyallahu anhu qaal lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ñeel na yàlla day li nekk ci asamaan yi ak suuf wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu su ngeen feeñeende li nekk seen bakkan yi wala ngeen nëbb ko yuxaasibukum bihillah yàlla dana leen ko régler yowm alqiyaama fa yaxfiru li man yashaau wa yuazibu man yasha mu jéggal ku mu soob mbugal ku mu soob wallahu ala kulli cheyin qadir te yàlla day bépp mbir mooy ko ci am kattan ishtadda zalika ala ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loolu day taroon na lool ci sahaaba yonent bi fa ataw rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ dikkale yonenti yàlla bi thumma baraku ala rukab ñu daal di bóof ca seen óom ya fa qaalu mooy sukk seen óom ya fa qaalu ayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ay yow mi yàlla yónni kullifna min al amali ma nutiq ñun dey yàlla tegoon nañu ci jëf yi loo xam ne moom mën nañ ko te mooy alsalaatu wal jihaadu wa siyaamu wa sadaqa julli yeeg jihaad yeeg koor yeeg sarax yi waqad unzilat alayka hadhihi al aaya wala nutiquha léegi nag wàcc nañ ci yow aaya bi waaye aaya bi moom mënuñu ko de qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aturiduuna an taqulu kama qaala ahlul kitaabayni min qablikum ma ndax da ngeen a bëgg a wax nam waxe woon borom ñaari téere yi leen jiitu woon mu yahudi ak nasaraan yi te mooy sami'na wa asayna yàlla dégg nañ waaye mooy nañu bal quulu sami'na wa ata'na la ngeen di wax kay mooy wax leen yàlla dégg nañu topp nañu ghufranak rabbana wa ilayka almasir yàlla yàlla ngi may sa njéggal ndax ci yow la ñuy mujj qaalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka almasir noonu la sahaaba ya waxe ne ñun day dégg nañu topp nañu ñi ngi lay ñaan sa njéggal yàlla ci yow la ñuy mujj falamma iqtara'aha alqawm bañ demee ba xeet ba daal di koy jàng ak jàngin wa zallat biha alsinatuhum mu daal di sax ci loolu seen làmmiñ ya fa anzala allahu taala fi isriha noonu la yàlla wàcce ci gannaaw loolu ala kulli xaal mbokk xaaj bu njëkk bi ci xadis bi abi hurayra di nettali sunu borom dafa wàcce aaya boo nekk ca jeexitulu baqara yàlla day moo moom li nekk ci kaw asamaan yeeg suuf léegi nag li nekk seen biir xol yi su ngeen ko feeñalee yàlla dana leen ci xisaab yowmal qiyaama su ngeen ko nëbbee yàlla xisaab leen ci yowmal qiyaama saxaaba yi daje waxtaan gannaaw ba ñu ñëw ak seen tiitaange ci yonenti yàlla yi sukk ci seeni oom na ko ay yemi yàlla yónni ñun day la yàlla jaarale woon sa loxo loolu moom mënul nañ ko julli yaag koor yaag jihaad ya aaya yi yàlla wàcc ci yow nag loolu mënuñu ko mooy contrôler suñuy xol ba duñ ca xalaat lu neexul yàlla loolu moom mënuñu ko ñëw na ci yenn riwaaya ñenn ci ñoom daanañ ñëw ay yemi yàlla yónni kenn ci ñu ne léeg-léeg mu xalaat loo xam ne jóge woon ci montagne daanu tasaaroo moo ko gënal mu koy wax keneen ñëw na ko ay yemi yàlla yónni kenn ci ñun dey mu takkoon ba def doom des fois moo koy gënal li nga xam ne da koy xalaat yonent bi alayhi salaam ne zaaka saruux al iman mu ne loolu mooy dëgg-dëggi ngëm ca lu waral loolu mbokk mooy seytaane sunu noonu day fekk jullit bu gëm muy jaxe sa xolam di dugal ci moom ay xalaat yu bon amma na nga maîtriser sa bopp ba waxoo ko jëfewoo ko loolu muy wan ne ngëm yàlla dëgg moo nekk ci yow waaye amul kenn koo xam ne day mucc ci loolu loolu tax gaa yi dañuy nettali ne ibnu abbas ay gaa yi dañ ñëw ne ko ñun daal dafa lu ñuy jaaxal mooy juif yi bu ñuy julli dañuy gis seen concentration amul lenn lu leen di déranger léegi jullit ñi nag des fois dañuy julli nga gis ci ñoom gaa yi gessoo ka wala yu demee noonu daal mu ne leen loolu lu leen ci jaaxal moo di ne ne xol boo xam ne dara lu baax nekku ca seytaane lu muy wut ci xol boobu seytaane lu ko yitteel mooy xol yu baax yi ni muy def ba yàqu ko looloo tax tey jii da ngay gis waa ji nekk ci grand place damier bi est ce que xam nga mën na concentrer une heure de temps yoo xam ne du xalaat lu dul damier bi parce que foofu seytaane amul lu mu ko yàqal amaa yow jullit bu baax bi bàyyi sa kër dem jàpp ñëw ci jàkka ji léegi la gën a allahu akbar rek mu ñëw ne waaw conteneur bi nag loo ci xalaat gis ngeen loolu mi ngi noonu su ko defee loolu kon moo tax yonent bi alayhi salaam ne lépp lu ngeen di xalaat fi yéeg waxu leen ko jëfu leen ko yàlla du leen ko tàppee waaye avant loolu di am yonent bi lu mu leen wax mooy ëpp naa def bu leen wax ni yahudi ak nasaraan yi waxoon ca mooy ba yàlla wàccee ci ñoom ay aaya dañ ne yàlla sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ajal comme ni ngeen koy jàngee baqara loolu kon bu leen ko wax nee leen yàlla sami'na wa ata'na yàlla dégg nañ say ndigal topp nañu pare nañ ci loolu ca mbokk sunu diini ji nga xam ne tubaab bi ñu ko fi indil muy armée ndax xam ngeen armée diine la boo demee engagé wu ci mooy da ngay engagé wu ci yow ay ordre bu jógee sa chef comprendre nga comprendre loolu da nga ko war a exécuter am déet gannaaw ba nag booy def demande wala rapport nga def ko mais chef bi joxe na ay ordre deux heures du matin alerte jóg ngeen dem leen lu xew dem leen bombarder Kédougou da ngay dem bombarder Kédougou xoolal li xew Syrie armée nationale mooy bombarder nation ba am déet mais ñoom pour ñoom dañ jàpp ne c'est normal donte ne bu dee gisuñu l'islam dañ naan la général ba ak président bi ñoo bokk yem innama taatu fil ma'ruf nit ki lañ koy toppee day doon lu yàlla subhanahu wa taala araamalul waaye ala kulli xaal yow julit ka nga xam ne moom ngay topp topp gu mat sëkk te la nga xam ak la nga xamul mooy sunu boroom moo tax ñoom ñépp ñu sukk sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana yàlla jéggal ñu yàlla jéggal ñu ci noonu nag la yàlla wàccee jeexitalu aaya ya tëj amanu rasul comme niñ koy jàngee insha allah
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم رواه مسلم
ci sahaaba yi biñ defee loolu la sunu borom wàccee waxam jami wax amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi yonent yàlla bi dee gëm na lañu wàcce ci moom mu bawoo ca boroomam wal mu'minuun julit ña tamit kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ñoom ñépp gëm nañ yàlla ak malaakaam ak téeréem ak yonentam la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ñun day duñu teqalee diggante kenn ci yonent yooyee wa qaalu sami'na wa ata'na ñu ne yàlla ñun day dégg nañu topp nañu ghufranaka rabbana wa ilayka almasir ñi ngi ñaan sa njëggal yàlla ca ci yow la ñuy la lépp di mujj falamma fa'alu zalika nasaqaha allah ban demee ba def loolu yàlla mansuuxal lam waxoon ni danaa leen xisaab ci li ngeen di xalaat fa anzala allahu azza wa jal yàlla daal di wàccee moom mi tedd ca màgg laa yukallifu allahu nafsan illa wusaha yàlla du teg benn bakkan lu dul la nga xam ne mooy kattanam laha ma kasabat dana ko ñeen lépp lu mu fàggu ci lu baax wa alayha maktasabat dana dellu ci moom lépp lu mu fàggu ci lu bon rabbana isna boroom laa tuaxisna in nasina aw axtana e yàlla bu ñu jàppe mukk bu dee dañoo fàtte wala ñu juum qaala naam sunu borom ne def naa loolu rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltuhu ala allazina min qablina e yàlla yàlla boo teg ci ñun loo xam ne nii ab yen bu diis la comme na nga ko yene woon ña nga xam ne ñu ñu fi jiitu woon qaala naam sunu borom mu ne def naa loolu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ay yàlla yàlla boo ñu teg loo xam ne amuñu kàttan ca loolu qaala na am yàlla ne def naa loolu waafu anna yàlla yàlla nag ñu jéggal suñuy gàttanlu waxfir lana yàlla nag ñu baal suñuy bakkaar warxam na yàlla nag ñu yërëm jàppale ñu bañ def say ndigal anta mawlaana yàlla yow yaay ki nga xam ne yaay suñu péete fansurna ala alqawmi alkafirin yàlla nag ñu dimbali ci xeetu yéeféer yi mbokk suñu borom subhanahu wa taala defar na sahabatul kiram ñoo xam ne yàlla na yàlla fayal ñu leen mbokk sahaaba yooyu ñoo nekkoon li tubaab yi tudde cobaye mooy médecins yi des fois bu ñu jëlee ay piqûre rek ay yooyu léeg-léeg am ñu am ay volontaire ñu essayé ko ci ñoom su ko defee ñoom ñoom la yàlla subhanahu wa taala natt woon ci diine ji ba mu normal mu doog koo jox xeet bi yépp léegi kon ñëw nañu ci yeneen ci bàyyi salaam sukk jaar fa mu jaar ak moom commencé di wax yàlla dégg nañ say wax topp nañu yàlla yàlla nag ñu jéggal sunu borom nag daal dina ah yeneen ci yàlla bi day gëm ne li ñu wàcce ci moom mbokk ki jëkk a gëm alquran ki gën a gëm alquran mooy yeneen ci yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam waaye it wal mu'minuun mbokk jamono jooju ñan mu nekkoon al mu'minuun mooy as sahaaba looloo tax borom xam-xam yi dañuy wax ne diine ñett la sunu borom subhanahu wa taala dane man yushaqiqu rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla mooy diine mooy topp yàlla topp yonent yàlla topp sahaaba ya ndax moom la borom ndax sabil almu'minin mooy mu'minin yooyu sunu borom ni gëm nañu muy sahabatul kiram léegi sunu borom ne ñoom ñépp day gëm nañu yàlla ak i malaakam ak i téeréem nee nañ ñun teqali wuñu kenn yahud yi bon yi nga xam ne dañ ne Isa du yonent da nga xamee ne nii wax nañ Suleymaan du yonent da ngay gis lenn ci nasaraan yi weddi yonent yàlla yi ila axiri ñun loolu daluñu ca la gën a màgg lu yonent yu yahud yi ak nasaraan yi weddi mooy sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu ñu ne yàlla ñun teqali wuñu kenn ci la nga xam ne mooy sa yonent léegi nag yàlla dégg nañ say ndigal topp nañ say ndigal ñu ngi lay ñaan rek nga jéggal ñu ndax xam nañ ne ci yow la ñuy mujj loolu itamit mbokk jullit mooy doomu aadama bi loo dogu dogu ci topp yàlla xamal ne fokk nga def bakkaar loo dogu dogu ci topp yàlla fokk nga def bakkaar léegi nag doogul ci topp yàlla heure boo yégee def nga bakkaar nga tub dellu ci yàlla xufraanaka wa ilayka al masir loolu la yàlla mansuuxal aaya boobu mu tëkkoo woon ne danaa leen xisaab lu nekk seen dënn daal di wàccee ñaan goo xam ne moo ñu ko jàngal comme nim ñu jàngale fatiha ñaan gi gën ci ñaan yi mooy fatiha ndax yonent bee ko ràbb déedéet yàllaa ko ràbb joxuñu ko ci mbaaxam bokk na ñaan googu sunu borom lim njëkk a wax mooy yàlla du teg benn bakkan lu dul kattanam kayit loolu xéewal la masalan tey nañ aju màkka bu yàlla noonu aj leen makka rek un point un trait ñépp war a aju ji makka déedéet képp ku ko mënul yàlla baal na la julli ngi nii sunu borom mu ne quumu lillahi qaanitin taxawal leen yàlla ngeen julli waa ki mënul nag sunu borom mu ne baal naa ko toogal julli xatta te dal julli yàlla du teg benn bakkan lu dul la man lépp loo xam ne def nga ko ci lu baaxit xamal ne loolu yaaka moom kenn du ko jël kenn du la ko nang kenn du la ko dàqal da ngay gis ay ñoo xam ne wallahi ñu nekkoon sotraak wala nekkoon suwadib wala nekkoon fenn dund nañ ba dee bàyyi fi ay mois de salaire yu ñeen fayul bàyyi fi ay intérêt yu bari ci seen wàllu départ retraite ak nangam nangam loo xam ne ñoo ko ñaq ñoo ko fagg waaye dund nañ ba dee mosuñu ko am déet mosu na ngeen dégg ko de amaa loolu amul alaxira lu waay fagg yaa ko moom la nga def ci bàkkaar yi kenn du ko jox sa ndey kenn du ko jox sa baay ci yow rek lay dellu borom boobu nag subhanahu wa taala ne lii bi nga xamee ni nii jullit ñi wax nañ ko mu jàngal leen ay yàlla yàlla boo ñu jàppee su dee dañoo fàtte wala ñu juum gaa yi jullit bu fàttee yàlla baal na ko koor gi bu leen lekk fajar ba guddi fàtte nga añ ba regg yàlla baal na la mi ngi noonu la nga xamee ne muy julli julli leen waxtu julli jot ne fàtte nga ko du cuu yàlla baal na la amul benn bàkkaar ci loolu allahuma lu dul ne loolu da nga koy julli naka noonu lépp loo fàtte yàlla baal na la ko la nga xam ne da nga caa juum doomu aadama lam juum def ko yàlla du ko ko toppe ñu ngi noonu même bu amee la nga xam ne ay jaamu yàlla yu ñuy teg pour kafaare yenn yi masalan ki juum rey nit ki juum rey nit en tant que bakkaaru rey nit bi amu ko lu dul nag sunu borom teg na ay loi jaamu yàlla pour bëgg nit ñi gën a def attention mu ne ko fi rey nit da nga goreel jaam wala nga war ñaari weer yu tegaloo gannaaw ba joxe diya lu dul ñu baal la loolu pour nit ñi gën a def attention ndax borne yooyu bu ci amul woon nit da gis rey nit gi dana gën a bari waaye doomu aadama lépp loo def te bi nga koy def tayoo ko yàlla subhanahu wa taala du la ko toppe moo tax sunu borom ne na am loolu tamit def naa ko sunu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne wax ne lii mu teg ci it ñu ñaan ko ne yàlla yàlla boo ñu teg coono comme na nga ko tege woon ñu ñu jiitu woon te yahudi ak nasaraan yi masalan ñoom ci seen place jaamukaay yàlla yi rek lañu amoon droit jullee yàlla mu may xeet bi suuf yépp fu leen neex jullee ñoom ndox rek lañ doon laabe yàlla may xeet bi bu ñu amul ndox nañu tiim yàlla tegoon na leen koor ku xis ba lekk benn yoon ci guddi gi ba nelaw pare nga suñu borom mu ne yéen guddi gi yépp lekk leen alakuli xaal coono yu bëri yi yàlla tegoon te ñu jëkk ña yàlla subhanahu wa taala teggal nañu ko gannaaw ba it mu ne yàlla yàlla boo ñu teg loo xam ne mënuñu ko ca falillahi alhamd yàlla it ne na na am mbokk diinil islaam amu ci lenn loo xam ne dañuy nit mënu ko xatta la nga xamee ne nii umma bi yépp la ko bokkit képp ku ca lott yàlla baal na la mu ngi noonu yàlla boo ñu teg loo xam ne mënuñu ko gannaaw ba yàlla yàlla nag ñu jéggal waafu an na mooy baal ñu baal ñu lan sant nga ñu ñu julli ñu woor ñu aj màkka ñu def lu baax loolu mënuñu ko matal yàlla lañ ca matalul baaluñu ko gis ngeen loolu mi ngi noonu léeg-léeg waa ji nga yoral ko bor mu ñëw jël ci lii ne la baal naa la lii wala li nga xam ne da nga ko waroon a fay ci jënd wala ci yu demee noonu mooy baal na la la nga xam ne nii mataloo ko amma waxfir la na mooy yàlla bakkaar yi nga xam ne def nañ ko yooyu tamit baal ñu ko gannaaw ba it yàlla yàlla nag ñu yëram te yërmaande bi mooy yàlla aar la ba nga bañ a def ci bakkaar yu mag ya waaye xiiwal la ba nga def santaane yi te loolu mooy la sunu baay aadama waxoon borom bi rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin yàlla dañu tooñ nañ sunu bopp su dee ne jéggaloo ñu yërëm ñu bañ bañ caa dellu kon dañuy bokk ci ñi nga xam ne dañuy doon ñuy perte la mujj ci ñaan gi mooy yàlla yàlla nag ñu dimbali ci kaw yéeféer yi ca mbokk yéeféer day yàq diine yéeféer yi bu ñu sañoon jullit ñi génn ci seen diine dañu war a ñaan yàlla dimbali ñu ci ñoom njëlbeenu yéeféer nag mooy iblis njëlbeenu yéeféer mooy iblis gannaaw ba yahud ak nasaraan ya ak bépp ate képp koo xam ne da ngay gis ne noonu lislaam la ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala daal ñuy dimbali ci ñooñu mbokk li lépp dañuy gis ne bi mu amee sunu borom subhanahu wa taala def ne def naa ko mu it ayat yoo xam ne nii yonent bi alayhi salaam nee na ku ko jàng ci guddi gi dana ko doy sëkk amana rasul bi ma unzila ilayhi ku ko jàng guddi dana la doy ñii ne dana ko doy ci ay xasanaat ñii ne dana ko doy ci muslaay ila axiri mooy lu am solo loo xam ne jullit ni war na ko jàng mu bokk ci ñaan yi gën ci ñaan yoo xam ne nii doomu aadama bi dana ko ñaan te mooy ñëw na ci ay riwaaya mi ngi jóge ci suufu arsh moom ak la nga xam ne mooy fatiha ila axiri mbokku bind boobu kon xam naa foofu la ñuy yem ndax loolu la ñuy waxtu wi may di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu ci ñi tënku ci ndigalam ak ndigala yonentam boole ñu ci ña nga xam ne da leen di jéggal daal di leen di baal daal di leen di yërëm wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad